Yuusuf mooy waxtaan ak Ibrahim ne ko assalaamu jàmm nekk si yéen wa rahmatullahi ak yërmande yàlla wa barakaatuhu ak barke Yuusuf moo ne ko assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu moo yàlla na jàmm nekk si yéen jàppal ne nag uh, nit ki romb moromu jullitam nuyu ko loolu fardu kifaaya la bu nekkee mbooloo ñoo romb bu ñenn nuyu bu kenn nuyoo rek wàcc nañu des ñeneen ña des jaru ñuy nuyoo waaye nag bu kenn nuyoo ñoom ñëppay am bàkkaar naka noonu tamit de de delloo nuyoo fardu kifaaya la bu ko ñenn ñi dafay wàcc na ñes ña sa des dégg Ibrahima ne ko waaleykum salaam wa rahmatullahi na jàmm nekk si yéen ak yërmande yàlla abarkeen ni ahlan wàccee sa ñooñ wa sahlan wàcc bu yomb wa marhaban ñu ngi lay daral bi ka si yow ko ahlan wa sahlan wa wala mu dikkaleel si la bu la nuyoo wax ko si salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu nga teg ko si ahlan wa sahlan wa marhaban bika bu dee gan la si yow sa wax lool ndax amaana nga ne ko muy la salaamaaleykum wa nga ne ko waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu rek loolu amaana mu def si jeex si xolam bu nekkee ñaawkatu njortu na waaye nag boo ne ko waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu ahlan wa sahlan wa marhaban bika mu xam ne kii kat ñëw bi nga ñëw nii neex na ko te ndax ndaxte dalal nga ko bu boobaa dina sawar si yegsi te dana dana kontaan si yow dégg nga yaa xaali yow sama euh, tanta eh, yow sama tonto kayfa xaaluka naka sa xaal naka sa mbir bi xayri amaana yaa ngi yaa ngi yaa ngi si jàmm xam nga mën na ko wax xaaluka rek naka sa mbir noppi waaye nag mu tere ko si nekk la laalaka bi xayra amaana yaa ngi si yaa ngi si jàmm ndax yaa ngi yaa ngi jàmm mi ne ko alhamdulilahi maa ngi sant yàlla ay na abuka an sa baay yaa ibrahima yow ibrahim yusuf ne ko alhamdulilah maa ngi sant yàlla ay na an sa baay yow ibrahim am nga mi ne ko zahaba dem na ila suuqi dem sa marché ba ibrahim ne ko sama baay dem na sa marché ba mi ko waaye na ummuka an sa yaay mi ne ko zahaba dem na ilaa xaalid ilaa xaalid te jëm si sama tante Zeynab Zeynab mi ne ko sama yaay dem na si sama tante tante Zeynab mi ne ko waaye na ixwatu ko an sa mbokk ya mi ne ko zahabu de dem nañ ilal di jëm sa université mi ko waaye na axwaatu ko an sa mbokk yu jigéen ñi mi ne ko zahab na dem nañ ilal madrasati jëm si école bi kon moom seen kër wéet na de ko an sa mi ne ko dem dem na sa sa yaay dem na si sama tante Zeynab an sa mbokk yu góor yi dem nañ si jaamia ba ànd sa mbokk yi jigéen ñi dem nañ si école ah ku fay des kon kana moom mi ne ko ama zahabta kana demoo ila madrasati dem ne ko kana tey demoo école yow ko balaa ankay zahabtu dem na wa rajaatu ma dellu baada xisatil ula ginnaaw kóor bu njëkk ba mi ne ko dem na waaye ba cours bu njëkk bi jeexee dama dellu siwaat mi ne limaa zaa rajaata lan moo tax nga dellu nga dellu si mi ne ko rajaatu dellu naa li ànd ndaxte man maridun dama feebar mu ne ko dellu naa ndax man dama feebar kon mu ngi noonu euh, mu ne ko laa ayut a zahabta ndax dem nga tabibi jëm si docteur ba mu ne ko naam waaw zahabtu dem na tamaarin ay jamatu ajib tontu la ani asilatil aatiya si laaj di ñëw ayna zahaba fan la dem abu ibrahima bàyyi ibrahim ci darsu bi wax na la fan la bàyyi ibrahima dem wa ayna zahabat fan la dem ummuhu yaayam yaayam fan la dem mata rajaa kan la dellu ibrahima ibrahima min madrasati di jóge si école bi yooyu yëpp yi mu ngi si darsu bi yaa koy tontu dégg mu ne ko daa tegal haatihi alaamaat yi la mandarga sax tamay sax amaama aljumali saxiya si kalama jumla yu wér yi wa haadihi alaama ak bi man man mandarga te mooy xata amaamal jumlati si kanamu jumla yi xayra saxiixatu yu wéerul yi nee na nga teg vrai ou faux si jooju jumla yii nii di ñëw bu nekkee vrai la nga def sax bu nekkee xata la nga def faux mu ne nii Ibrahima Ibrahim ibnu uxti Yusuf doomu mbokk Yusuf la bu nekkee vrai la si la nga jàng si dar darsu bi nga def vrai nekkee foo nga def foo yusuf yusuf am ibrahima baay taxu ibrahima axawaatu ibrahima mbokk dem nañ ilal maktabat jëm si bureau ba ibrahima mbokk ibrahima yu góor yi zahabu de dem nañ ilal jëm si université bi yaay bu nekkee sax nga bu nekkee nga def ma zahaba demut ibrahima ibrahima si docteur yu fima yali si yi di ñëw alfi'lu zahaba fi'lu zahaba wa asniduhu nga wet ko ila damiri munasib jëm si damir yinam dëpp yi ni mu la bëgg jox ni yaa fee teg damiru zahaba si barab yu wéeti nga def fa zahaba waaye nag bu nekk ak ak ak ak ba mu ànd ak bu nekkee mbooloo yu góor la waaw waaw waaw waaw lay am nga def fa nga def zahaba pare yokk si waaw bu nekkee mbooloo jigéen la yaa xam lan sooy def kenn ku góor wala kenn ku jigéen yëpp nga def ko si daal noonu al awlaadu xale yi góor yi za zahaba yaa xool tamit ba si jokk nga def ko ilal maanaam jëm si tey tey ba al mudarris bi ilal fas jëm si classe ba waxtu si sama mbokk ilal matbax jëm si waañ ba ak taalibaatu taalibe ilal madrasa jëm ba ana man ilal matar jëm ay ay bi ay na fan anta yow. yaa fay xool zahaba yaa fay dugal zahaba bu nekk tamit ak damir ba mu ànd nga def ko mi ne saxeex wéral al jumla ay atee jumla yi di ñëw zahabtu ndax de dem dem naa ilal mustasfa jëm jëm si hôpital bi yaa Muhammad yaa Muhammad jumla yi mu def dafay yàq yaa koy wéral zahabtu ndax dem naa ilal mustasfa jëm jëm si hôpital bi yaa Muhammad yaa Muhammad loolu bu wéree nga nga nga wéru yaa koy defaraat amina natu amina wa fatima ak fatima wa zaynab ak zayn zaynab del nañ min al jaami'at jóge ko ci université bi zumala yi sama anandoori zahaba dem na ila maktab jëm si yaa makka jëm man raja'ata dellu nga min riyaad jëm riyaad am dem min riyaad jóge ko riyaad ay doomam zahaba dem na ilal jidda ilaa jidda jëm jëm jidda ummi sama yaa qaala wax na ana man may maridun aji feebar la yëpp da ngaa yàq yaa koy defaraat ajib tontu an asilati lati aatiye si laaj yi di ñëw bi nafi si dàq maa mi mustaamila nga jëfandikoo maa maa zahabta ndax dem nga ila madrasati jëm si école bi am si démb nga ne ko dew ma école démb nga ne ko nag maa maa lay ànd ak raja ndax del na abuka sa baay min Bagdad jóge ko Bagdad ne ko sama baay jóge ko wut Bagdad ba tey waaye rek ma di di ànd ak ma dégg nga <clears throat> zahabat ndax ndax ndax dem na uxtuka sa mbokk mi ilal mustashfa jëm si hôpital bi yaa yaa yaa koy tontu nag tontu bi day dàq waaye day ànd ak ma te amal serentalal ma yeli yee di ñëw li anna li anna laam plus anna égal li anna dégg nga li anna plus huwa égal li annahu li anna plus anta égal li annaka kon daal lu mu la bëgg jàngal fi mooy li anna bu si bu si anaa nekkee li danga li an nii wala li anna nii thing lianna plus nahnu égal lianna wala liannana lianna plus anta égal liannaka lianna plus anti égal liannaki lianna plus antuma égal liannakuma lianna plus antuma égal liannakuma lianna plus antum égal liannakum lianna plus antuna égal liannakunna لأن بلس هو إيجال لأنه لأن بلس هي إيجال لأنها لأن بلس هما إيجال لأنهما لأن بلس هما إيجال لأنهما li anna plus hum égal li annahum li anna plus hum na égal li annahunna loolu la bëgg a jàngal léegi nag mu xamal ne la anna mu ngi mu ngi bokk si mbokk inna yi ndax inda yi inna wa anna wakka anna walakinna walayta wala alla si sa juróom ñaari ñooy mbokk inna yi ñoom dañuy nasab li si mu rafaa xabar comme inna allaha gafuurun wala anna allaha gafuur dégg ñoom dañuy rafaa dañuy nasab lisim rafaa xabar kaan nag wax waata ñoom kaan wax waata ñoom dañuy rafaa lisim nasab xabar comme kaan allahu gafuran loolu la bëgg jàngal moo tax mi ne moo tax mi ne li anna plus égal li annaha li anna plus anta égal li annaka wax mu ne la wa anna anna min axawaati inna mu ngi bokk si mbokk yi nay rajaa del na xaamit xaamit mi ne mad mad madrasati jóge ko si école bi li annahu ndaxte moom maridun daf feebar rajaat del na aminatu amina mina madrasa jóge ko si école bi li annaha ndax ndaxte moom maridatun dafa feebar rajaatu del na mina madrasa jóge ko si école bi li anni ndaxte man maridatun dama feebar wala nga ne li an li an na nii mën nga wax li an na nii mën nga wax li an nii moo si wax de day baax iqra jàngal mithaal mithaal yi suma ajib topp nga ton ani asilati ati si laaj yi yi di ñëw bi naam si naam aw balaa wala balaa xam nga lu ñu baaxoo woon mooy si arab lu ñuy wax waaw naam lañ la ñuy wax lu ñuy wax déedéet ne laa waaye am na si yenn baat yi nga xam xamante ne nuñ la koy laajee boo ko tontoo boo ko boo bëggee wax waaw balaa ngay wax boo bëggee wax déedéet naa naam ngay wax foofu boo boo fa waxee naam yàq nga boo fa waxee laa yàq nga kon kon foofu balaa mooy waaw mm, ankay naam mooy déedéet foofu dégg muy nii loolu la bëgg a jàngal moo tax ne azahabta ndax dem nga ila madrasati jëm si école bi am sa démb boobu naam ngay wax naam waaw zahabtu dem na waaye nag bu la ko laajee ni man ndax demoon ila madrasati jëm si école bi am sa démb nga naan dang naan koy balaa balaa ankay zahabtu dem na arajaa ndax dell na abu kasa baay mi ne suuqi jóge ko sa marché ba bu nekkee naam la fa laaj nga def naam bu nekkee balaa la laaj nga def balaa amaa rajo rajaa ma ndax delluwut abu sa baay mi ne suuq ko si marché boo xoolee question bi sax niñ ko laajee dinga ko xam bu nekkee balaa la nga def balaa bu nekkee naam la nga def ndax dem nga ndax azahabat ndax dem na layla layla yal jaamiat jëm si université bi naam wala balaa rek bu si jëkkee nga def ama zahaba ndax ma ndax dem axuka sa mbokk mi ila riyaad jëm riyaad bu dee naam nga def naam bu dee balaa nga def balaa kon mu ngi noonu loolu mooy darsu quatrième bi si loxo lu si jub si yàlla lu si la suñu ñëw in urida al islaaha ma stataatu ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi